ndax jëpp jëf juñu ñu jëf ca sëñ bi tax ka ko jëf jëf-jëf ja sëñ bee ko raw gon ko rafet la mu jëf looloo waral Cheikh Amar jëf-jëf ju rëy fa barab bokki taalibe yi ñu ngi sant yàlla bu baax julli ci sayyiduna Muhammad sangu sangi sant Sëriñ Tuubaa Mbakke mi taxnu tal ko ñaanal bu baax Cheikh mamadou muntaha yàlla bàyyi ci kanam njabootu Sëriñ Tuubaa ñaanal sëriñ Cheikh mi waral jataay bi tey sëriñ Saliou tey noo ngi ñaan mu yàgg lool noo ngi fii nag ci kër ku tedd gi kër sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbacké kër gi nga xam ni ku fi mas a dugg ak njàqare boo génnee tàggoo nga ak moom noo ngi ñaan sëriñ Cheikhum sëriñ Saliou yàlla bàyyi ko fi kii toog nag mooy Cheikh Amar bii ci pàkk bu sell bii li tax tey mu toog ci kaw moo sëñ aboo sëriñam bii sëñ bee ko jox ndigal xam ngeen ci li mu jóge waaye xam ngeen ni murit saadix a ngi nii toog moo tax tey mu toog toogaayam bii dend ak sëriñam bii xaritam bii soppeem bii di wax ak moom guddeeg bëccëg dox digganteem ak sëriñ Cheikh yoonu murit sëriñ Saaliw woo tax kenn laggiwul moo indi xel koom yoonu murit ku liggéeyul laggi te ku laggi boo dawee ñu raw la loolu waral xel koom sëñ bi liggéey liggéeyloo na ñëpp mu jéewu ko nag mu réer moom sëriñ Cheikh moom sëñ Saaliwu moo tax tey Cheikh Amar def na mu daa def sëriñ bee ko def jëwriñ ñu ko yaay jëwriñu xel koom gis ngeen ci sëñ Moussa Abdoulaye Karam lañ jógee dégg ngeen wax ñëpp ko wax wax jooju nag sëñ Cheikhum sëñ Saaliwu ko ko wax wax jooju nag Cheikh Mouhamadul Muntaxa moo ko ko wax ba mu fa jógee nag wër ngar li ba noppi ci la ñëw nag toog ci kër sañ bi war a yëkkati kàddoom ndax booba ba léegi kenn déggul kàddoom jàppoon nañ sax du ñëw xel koom waaye mu ne man xel koom moo may wéral Abdoulaye ma ne ko Mbakke mu ne ma bu ma bu ma doon ñàkk sama bakkan wala may raam danaa dem tey xel koom xamul ni too docteur yi nañu xam ni ak samay bokk xel koom moo may wéral kon maa ngi dem xel koom. asalaamaaleykum wa rahmatulah sëñ Abo maa ngi lay nuyu maa ngi euh, ku teewee jotaay bi gannaaw bu ma sant yàlla sunu borom bu baax bi tabaraka wa taala ñu ngi julli ci sangu-sang yi yonent bu baax bi sallallahu alayhi wa di sant Serigne Touba Xaadimu Rasuul di ko jaarale sunu bunt muy Serigne Saliou Mbacke moom it buntum sama bunt ci sëriñ bi di Serigne Cheikh mu sëñ Saliou Mbacke maa leen di sant sant bu wér di sant samay waajur nga xam ni sunu diggante nit ñi ak Mbacke Mbacke yi sunu ay maam la woon mm-hmm. lu loo xamante tey la kon nag comme ni ko Ablaye waxee rek sëriñ bi mënta toog may yëkkati baat moo tax keroog bi ñuy def appel bi gala si la waxal ma waaye li mu wax maa ko wax maa ngi sant yéen ñi déjà fi fekke presse bi ndax dama gis ah unanimité moom amul waaye li ma jot a gis yëpp presse yi nga xam ne daan nañ ma xas sax lu rafet leen ci bind ma gis sénégalais yi yépp ñëpp am ci yërmande wax ci lu rafet muy fii mooy ñu nekk euh, bitim réew muy diaspora bi waa Italie mënuñ leen lim France ba Guangzhou Chine kon nag sénégalais ni nga xam ne liñ def yegg na sama biir xol te lépp lu ñu mos a def euh,

da doon mbër wala lii damaa jàpp ni man euh, lu ma am ci saayir ak baatinam sax <laughs> sëñ Saliou Mbacke tax parce que am na ñu ma gën a jege sëñ Saliou ci saayir ni ci deret te kenn xamul leen mm-hmm. mais Cheikh Amar foo ko tudde ñu ne la ban ci mu sëñ Saliou Mbacke mm-hmm. kooku mooy sama màndarga kon mm-hmm. nag bu ma amee loolu duma ko foye dëgg la. donc loolu laa bëggoon tënk. pour remercier leen euh, ci mbir moom bu ñu weesoo loolu li tax ñu jóg tey noonu la ko Ablaye Mbaye waxe noonu la demee ndax ñu bëri yërëmoon nañ ma ne waaw xam ne yaa ngi doo a commencé sa tànk yooyu ma ne leen loolu moom bañ dem xel ko moom moom xam كوك موم لا نوني واخ لا موم ديت موم سي جاري صاح باي نيت ولا ما جابلا باسكو دا ما جابني لو خامتاني دا نلاكو ياتال جوخ لاكو باسكو كي بري نا ما خام نغ لو ملني ماغل توبا مودي ييب كو بوك دين يينن نيت ام نانيو كو بوك waaye lii nag sëñ cheikh mbàkke mu baax mi teg sama loxo jiital ma ci waaw kooku nag sëñ bi booy la am sax war nga fa mën a def Ablaye bi ma waxee démb dama nekk bu may raam sax danaa dem xel ko ndax dama jàpp ne loolu moo faj man waaw loolu daal laa bëggoon tënk ci waxtaan bi sant leen nag yéen bu baax ndax wax dëgg yàlla yéen a ngi ci jàpp boobu ba léegi eh, te xam nga lu lu siiw rek presse moom moo ko siiwal te nee naa man ñi ma doon tooñ ci presse ak yooyu yëpp jéggal naa leen mm-hmm. parce que biñ nee ba gis ni sama situation ni ñu ko yaakaare sax demewul noonu photo bi la mais gis naa yërmande gi ñu mu ñoom muy médecin yi ñëw nañ sax waa hôpital principal euh, ñëw nañu seen seen jëwriñ baa ngi fee di sant général maam maam Thierno ñoom ñëw nañ jàpp ci liggéeyu Xelcom bi euh, di profité euh, di gërëm Euh, président. Mhm. ci baatu nag Aly Ngouille Ndiaye. parce que bi ñu yëgee loolu aussi lépp lu ñu mën def nañ ko dem nañ ba naan dañuy luyee jet sax pour jël si ma mais yàlla dogal ma dem ambulance ak sama ñaanu sëriñ bu baax ak tarixa yëpp. Mhm. ku ma ci woowul euh, xalifa bi yónnee nga euh, ñëwal nga sa bopp wala nga yónnee sa délégation kon Sénégal amuma seen pay

dem xel ko parce que man loolu mooy sama problème sëñ Abo mii di sama sëriñ di sama doomu sëriñ xam na ci dara bi mu amee ñaari fan laa sama problème ci boppam laa ko doon wax sëñ sëñ bi kat ban xel ko fi mu nekk rek moo ma jaaxal dama fay tege sama tànk li sëñ kiiti wax tam nee nga sëñ Moustapha Rakam maanaam ñoom ñëpp a ci jàpp sëñ Muntaxa sax naroon na ko ñëw mais dafa am gàllankoor yónnee na ay ñaan ñaanal ma téléphoné na di di yónni sëñ Moustapha Lakaram ak moom bu fekkee loolu parce que xam naa ni sëñ ñi ma wax ci tool yi rek sëñ sëñ Moustapha ko xamee yaakaar naa ma ko gisee nii ñi koy yëkkati xëy na sëñ Cheikh Saliou lay doon wala sëñ Muntaxa ndax diggante bi moo yàgg dafa di nit ko am fay def kon nag comme loolu laa doon ñaan yàlla defal na ma ko kon sant yàlla rek ndax sëñ aboo ngi nii sama sëriñ la du ma bàyyi ma ma ma fen bi ma koy wax laalaguñ sax sama tànk yi loolu la doon sama premier problème waxuma màggal waxuma dara parce que loolu murid yëpp ko bokk dafa mel ni nga ni dem màkk mais nag lii lu ma sëñ Tuubaa yettal la sëñ ci jox ma kii bi moo taxoon man sama problème xam nga ku nekk ak sa problème sa oto bu bu paane xam nga sa problème mu bopp la man sama problème moo doon xel ko ma ñaan loolu nag sëñ Tuubaa defal ma ko loolu maa ngi sant yàlla bu baax. gannaaw bi yàlla defee. sëriñ sëñ Moustapha sànq bi nga ñëwee mu wax ci turu sëriñ Mountakha muy sëriñ Moustapha Lakram wax ci turu sëriñ Cheikh moom sëriñ Saliou wax ba mu yàgg mu daal di simmi mbaxaneem en tant que kilifa ñëw solal la ko daal di simmi kolom ñëw tegal la ko ni la donte ñooy sa sëriñ ñun kat da ngay toog ñu leen liggéeyal ndax yaay suñu jëwriñ jëwriñ nag xel koom loolu nekkul lu tuuti nga bi ma la ko solelee ba noppi ñëpp ni teg ñëpp toog nag di la déglu ban yëg-yëg nga am ca loolu mu def noonu ci ci ci ci loolu nga xam ne sëriñ bi def waaye ci am mooy xol bu sedd rek parce que ku la ne sëñ Muntaxa yónnee la ay cant yoo xam ne mi ngi jëm ci sëñ Muntaxa ak sa propre sëriñ ci boppam muy sëñ Cheikh yónni ko parce que doy na ci sëkk nekk bu Cheikh ñëwee nag ma ko santal ak yooyu ba pare moom nag ci wàllu boppam mu déco loolu décoration la man ni ma ko jàpp parce que xam nga mbaxane ak kol euh, xam nga li muy signifier donc euh, sentiment boobu laa ci am moom it muy doon sama di sama sëriñ di di tam sama xarit nekk nit ku dëggu parce que kooku du wax lo xamanteni ni eh, xam nga ñëmé wo taxaw télé nan sëñ muntaka moom wax lii. Hmm. wala sëñ Cheikh Salim li may wax ni dañ koy génne après donc euh, ñoo ngi ko si sant bu baax ak li nga xamni geste bobu mom moko ko defal boppam parce que tam eh, tool yi bari na mais mom la fa togal waxtaan si après bi ñu après dañ def tour yeeg yooyu.

loolu mënoon ti daal it def naa la jëw riñu xel kom kon loolu nag ku mu doy dara dootu doy ndax jëpp jëf ju ñu jëf ca bi tax ka ko jëf jëf-jëf ja sëñ bee ko raw gën koo rafet la mu jëf looloo waral Cheikh Amar jëf-jëf ju rëy fa barab bu mag ba nekk fa Tuubaa